ligue régionale wàcc ngeen petite catégorie ak jawaar wa ña ngay doxal pivot bi bal bi yaa ko moom ballon orange na moon Cheikh Hadjibou Soumaré moom la mooy royukaay bi ba jàngi jotee jàngi na ba jariñ askanam jotee jariñ na leen président yéema waa ba lay way waaw Cheikh Hadjibou nam Soumaré doomi Cees jalaay waaw hey abi jiwa Hadjibou yow la ñu dénk jigéen ju baax di soxna Fatma Giro yow la ñu dénk jigéen ju baax di soxna Fatma Giro Fatma Giro Samba doon suma suma teewaay tey euh, Soumaré laa fi Hadjibou Soumaré laa fi teewal Hadjibou Soumaré mooy président de la commission de l'UMOA waaw wax ci dolli man nekkoon naa fi également conseil technique président de la République en matière de sport nekkoon naa fi conseil technique premier ministre en matière de sport nekkoon naa fi également directeur de l' administration générale et de l' équipement du ministère de la jeunesse et du sport avant la séparation des deux départements en de deux services euh, Soumaré moom moom la fay taxawal moom laa fay waxal euh, bu ñuy ligi ligi bi euh, saisiré ci par lettre ne dañu bëgg ku leen jàppale ci petite catégorie bi mu koy Soumaré mu rafetlu ko xam ne loo gis ci jeune pousse bi lay lay commencé loo gis ci ci jëmbët bi lay commencé moo tax ñu ñu sawar ci lool. joxe xaalis joxe suñu moyen pour ñu jëmbat pousse pousse yooyu pousse yooyu nag bu ñu ko jëmbatee mooy nekk pépinière pépinière à la base c'est une pyramide pyramide bi base bi large bi gën a dëgër sans cette pyramide la base on n'a pas de sport d'élite c'est toute notre démarche Soumaré nag moom ngi rafetlu également sama présence moom li ci li mu jublu mooy Thiès la dëkk Thiès la jàngee Thiès Thiès moo ko jox lépp kon nag fu mu munti nekk bu fa amee ndam war na ci war na ci xalaat waa Thiès Euh, xalaat ci waa Thiès mooy gis nga ni Thiès sport bi tubaab la macha allah basket bi yéen a ngi nii ko wax ñoo ngi liggéey ci ndaw yi handball bi démb bërki démb gagné nañu fi la coupe Sénégal du handball. tout ndax ñooñu dañoo am bërëb yu ñuy jogante. Mm-hmm. li fi nekk daal di lapp-lapp yi amagul doole mbaa bokk xaw bëgg mu ngi xaw a naax saay mooy football bi ndax dafa amul bërëb bu mu jogante. waaw suuf nañ ne. Mm-hmm. amoon na fi diir ñu tëjoon stade bi. Hadjibou Soumaré boobu premier ministre moom moo fexe ba ndawi Thiès yi amaat fu ñu yëngatoo. fu ñu mm-hmm. jongante. Mm-hmm. ubbil ñu. Mm-hmm. stade Lat Dior tey jii ndax Hadjibou moom mënta dimbale mënta gestu ndawi Thiès yooyu euh, jàppale leen ci infrastructure bu doon benn tapis gazon synthétique la sax mu may ko ndawi Thiès yi ñu def ko fee ca Mayang en attendant que ñuy defar stade Lat Dior. waaw léegi comme ni nga waxee rek euh, Soumaré bu fi nekkee premier ministre. keroog bu mu bu mu jël boobu décision pour réfectionner Lat Dior maa ngi fii c' était en 2008 à la place de de la promenade Thiessois jeune bi nga posé nawetaani la woon mu jël décision immédiatement ne dans un mois le stade sera en état de fonctionnement et ça a été fait léegi li nga ko waxee léegi mooy affaire stade Maniang Soumaré bi comme ni ma ko waxee stade Maniang dafa am statut boo xam ne statut spécial la c' est un stade municipal qui dépend de la municipalité de Thiès. avec des organes délibérants ñooñu peut-être bu ñu jëloon initiative ne dañ ci associé doomu Cees yi en général et en particulier Soumaré bu ci nekk defee loxoom peut-être dañ mun am gazon synthétique mais bu ku nekk toog sa ruq tamit du sotti d'une part beneen problème mooy aussi pour le football thiessois il faut que xol yi tapé aussi xol nekk benn parce que Thiès sur le plan du football ils trop divisés boo xoolee problème raay bi raay ngi nii depuis trois ans Sur le plan, ça c'est le code des obligations civiles et commerciales. Mais tout ça, on ferme les yeux. Mais il faut gars yi nangu rassemble wu bokk nekk benn xëccandoo dërandoo pour mun dem ci kanam je crois que ça c'est important on peut pas on peut développer une affaire dans la division doo xam sax koy àndal parce que boo demee ci kii mun a kii nga àndal boo demee ci kii mun a kii nga àndal kon bu nekkee benn def seen doléance autorité mun leen jàppale autorité bu ma autorité nag ñëpp la autorité politique société civile les fonctionnaires internationaux, tous les fils thiessois, dont le cœur bat pour Thiès, doivent se sentir euh, euh, qui intéressés par ce projet la waaw bu fekkente ni autorité yooyu ñaanuñu ko ak yëpp. waaw ah. ko jeunesse comme ni ma waxee rek xam nga ñaan dañ koy formaliser dox ci mbedd bi rek sumaare may ñu teene maa ngi dem ci marché bi na sumaare dañu bëgg nga may ñu teene dafa laaj àndandoo nekk benn. bind lettre formalisé ko jaar fu mu war a jaaree ne Soumaré dañu bëgg nga jàppale ñu ci lii moom moo xam fu mu jaar pour ma leen n'est-ce pas mais moom moom Soumaré Cotte du jóge ñëw rek ne dem leen jàppale par force def mu def infraction am na ñoo xam sax dana leen dana dana blessé seen susceptibilité li muy dox la ñuy wax ak lu muy daw mais en tant que fils de soi je pense que bu nit ñëpp àndee sollicité ko dana am lu mu def ça c'est important parce qu'il l'a fait dans le passé dans mais aujourd'hui il est ailleurs il y a des mais xoolal ñëpp ngi Thiès boo ñu bëggee mu jàppale leen il faut que ñu ci booloo àndandoo defandoo ay demandes une approche ah, vraiment unitaire pour pour l'intérêt de la jeunesse thiessoise. di nga bu ñu ko defee. bu baax sax 2 pour cent 2 200 pour cent plutôt. jërëjëf. joŋante yi tey mooy joŋante tout tànk yi ndax su ñu waxee ni basket rek dañu yaakaar ni mag ñi rek la su ñun dañu waxoon ni. xale yi su lañu war a gën a accentuer suñu suñu action donc tey final bi mooy final euh, tout tout tànk yi kenn daal lañ xam ni moo si moo ñu si jàppale muy Hadjibou Soumaré moo ñu jox xaalis si xaalis boobu si lañ mën a euh, commencé di di di organiser ñu ngi koy vraiment di ko gërëm suñu ne Hadjibou Soumaré tamit parce que am na keneen ku nekk si ginnaawam muy xaritam mu doomu ndeyam mu si mu Serigne Traoré kooku vraiment moo ñu moo si jàppale oo nom au niveau de tamit madame Traoré moom mooy chargé du sponsoring et du marketing moom moo ko démarché ba indi ba ba ba indi ñu fii. waaw man maa maa ngi tudd Marie Pierre Ndiaye di chef de service régional des sports bu Thiès di sant yàlla encore une fois et di ñaan yàlla tamit mu amaat yeneen ak yeneen ñu ngi fi tey ji stadium di vivre euh, finale régionale petite catégorie moo nekk tout tànk yi jëmale ko ci basket di rafetlu li ni mel. di ko rafetlu au nom des autorités de la région et plus spécifiquement du gouverneur de la région moom mi ma fi teewal tey di rafetlu liggéey bi ligue bi def am nañu ndimbal fédération bi bu yàggul rek fédéral président ñëw na fi joxe matériel waaye tamit euh, depuis bi ligue bi président bi ak équipe bi ko gunge téye reenu basket bi gis nañ liggéey beeg xarañte bi ñu àndal di ko liggéey jëmale ko surtout nag ci petite catégorie bi puisque lii moo ko firndeer tey jii di organiser compétition petite catégorie wana wan nañ ñu fi quatre quatre compétition quatre match yoo xam ne ñun ñëpp ñoo ko seetaanandoo gis nañ ne am na liggéey bu ñuy def à la base tamit di ko rafetlu di aussi di rafetlu liggéey bi ñuy def puisque tamit am na ay coach coach yoo xam ne ñu ngi ci jàpp bu baax passionné du sport waaye loolu yëpp tamit ñu ngi koy ñu ngi delloo njukkal bi di delloo liggéey bi tam ministre des sports puisque ñun suñu liggéeyee jëmale ko ci petite catégorie di ko jëmale ci région de Thiès dañuy liggéey suñu wàll liggéey suñu waar jëmale ko ci développement du sport à la nation kon boog du ñu def lu dul delloo ko ministre des sports mi nga xam ne moo ñu fi teg moo ma fi teg pour que ñu gën a doxal sport de la région bi mu jëm jëm kanam àndale koog ligue yi nga xam ne yàquñ ci dara lu fi am rek ñoom la. en ce jour mémorable. Monsieur Adjibou Soumaré, de la commission de l'Union économique est-africaine, qui a toujours été un partenaire privilégié du mouvement sportif Thiessois. D'abord, en tant que Thiessois, en tant que fils de Thiès, Thiès qu'il a vu grandir, il a fait ses humanités, il a gravi également différents échelons de l'administration il a trouvé nécessaire et opportun, voire naturel, de renvoyer l'ascenseur à cette jeunesse tchèchoise. C'est pourquoi l'ensemble des segments du sport tchèchois, que ce soit les anciens gloires, que ce soit le club civil, que ce soit le scolaire et aujourd'hui le basket, Soumaré est un partenaire naturel et un partenaire privilégié. C'est donc aujourd'hui l'honneur pour moi d'être là, de le représenter. Je remercie également le président de la fédération, cette nouvelle, de la Ligue de basket, dirigée par son président Babacar Diop. Cette ligue, nouvellement installée, prend des initiatives. Et la première des initiatives, c'est de mettre l'accent sur les petites catégories. Cette course, cette nouvelle course, cette pépinière, sans laquelle il n'y a pas de sport au sommet. Babacar, merci. à toute l'équipe, merci à l'Esprit Plus. Je voudrais dire également que notre compagnonnage va s'inscrire mais le monde évolue également. Tout à l'heure, quelqu'un a dit on voit pas le maire, on voit pas le président du conseil départemental. C'est vrai. Mais avec euh, la nouvelle architecture qui voit la naissance du haut comité de, de, de collectivité territoriale, avec les, compétences euh, les fonds de cotation, chaque collectivité territoriale, que ce soit la commune, que ce soit le département, devrait avoir également une politique sportive adossée aux ligues parce que c'est une manne qu'il faut exploiter. C'est une manne également qu'il faut voir pour créer le maximum de ressources afin de développer votre la base. Je l'ai dit tout à l'heure à tel point, de la fédération. J'ai dit que le club, c'est le creuset de la vie. C'est le creuset dans lequel on forme le, le, euh, le citoyen, le futur citoyen. C'est à cet âge que l'enfant est socialisé. C'est à cet âge que l'enfant respecte l'autorité. C'est à cet âge qu'il respecte le règlement. Une fois qu'on l'autorité, qu'on respecte le règlement, qu'on également tout ce qui est fair play et moral, un citoyen accompli. li ma ci bon wax daal mooy gàcce nga